liy róbbi réew na ndaw yi génn jàppale nañu ñun ñëpp ñu dem ci tool yi nangoo liggéey jëf jël ñaqootul borom. jërëjëf sëriñ ubbi nga bunt bu am solo ci ndaw ñi euh, ubbi nga yi tamit bunt bu am solo ci wàllu réew mi muy li ma laajte woon ne jamono bi àgg nañ foo xam ne economic crisis food crisis mm-hmm. muy wàllu dund ak wàllu koom-koom gu dellu gannaaw ak wàllu dund bu jafe bu dellu gannaaw ñu am ci ñaari yitte mooy ñu wax ne ndaw loo xam ne tollu nga ci sa doole nga jàng wala nga am métier bu mu ci mën a doo ñaar yi mën nga cee mucc boo toppee xam-xam xam ñor la nga góor-góorlu ca la nga man ba fa nga mën a yem boo geesoo di nga gis xam-xam boobu ku ko soxla pour jëriñu ko bu dee métier la métier mi ngay def faw rek am na foo ko soxla léegi-léegi sëriñ da ngay gis Gambie rek ngay gis ndaw loolu toog naa la dama napp toog jël baraadam tàngam teg jël rajoom sarte teg teg benn kasetam moo xam rege la cee teg ala mu ca mën a teg James Brown waaw teg ca kaset boo xam ne sëriñ sëñ nee na James Brown lay teg hmm, waaye fu mu ci mën a doo hmm. mu teg kasetam jël benn loxoom ba nag teg ca kawaram nga di baram soo waxee mu ne la damaa napp surne maçon nga fi maçon one hundred wala one fifty ñu fay la bàyyi dee nga maxu ni nga meloon noona ak fa nga doon jëlee loolu nga continuer ca hundred bu ñu la fay nga denc ko ba weer ñaata la three thousand am nga loo tàmbalee three thousand booba demal nga jënd ci marchandise nga jaayantu bu nawet jotee te ngay ku juddoo ci kaw mën a bay fii nga jógee woon départ sa bàyyi ci mbay la la yar ba nga màgg mën a ñëw komb boo paree dellul ca àll ba bu nawetee nga bay bu bay jeexee nga continuer dem defi sa loolu benn la ci bu ñaareel bi ñaari yëf fi mu toll ni dugg na ci biir xelu ndaw ñi ba tax pour liggéeyati lu sell yi tamit pour seen ñaq ñu dundee ko parce que yaa wax ne ñaq watul borom jëf jël la ñaq jëriñu ñaq watul borom ñaq wi otul borom nag ak ñaq wi or borom dañu jege te bokkuñ mooy am na bu xale yi di wax raba-raba hmm. raba-raba baaxut hmm. tur yi sax fa bëri de déedéet raba-raba ah, baaxul de ah, baaxul na ñuy liggéey képp ku ci mbay doon sa cër nga man ko te boo ko tëlee boo ne ngaa bañ a bay ne banaa bay hmm. boo demee nga jëf lu gën a metti bay xendoo wër ba ngoon nga doon def ci àll ba di fas wi daw nga topp ci koom bu fala nga yeggee tracé nga yeggee nga tourné bu yeggee nga tourné waat loolu nga doon def ba midi tey nga téye sa marchandise gàcc ci boobu mbagg mi gàcc ci mbagg mi di dox ba tout jot nga doog a taxawal dem jënd añ ñëw añ tëdd fenn wéedu nelaw fa tuuti foo jot nga jógaat continuer wër bu ngoon jotee nga nga tëddi nelaw lii de nga fa neewoon te lii ngay neyee ci àll te bële ëpp ko mujj bële sax moo ko gën a woyof ndax doo ci yenn wante te mooy yóbbu réew ci kanam yi nag. te lii mooy yóbbu réew ci kanam te yonent bi sallallahu alayhi wa ali dëgg dafa am ku mas ñëw jox ko loxo waaye bi muy jox loxo yonent bi mu ngi catale baaraamam yi pour parce que loxo bi daf ci liggéey ba mu koon li ñuy ooyee koon mooy yii dafa dem ba mujj mu am yu ci nekk yoo xam ne mënul euh, banque bu baax sax muy jox loxo yonent bi di gaaw a bëgg a rocci parce que bëggul koon-koon yooyu dal ci nooyaayu loxo yonent bi euh, mu di ko gaañ sax day rus a joxe loxo ci mbooloo yonent bi xëcc loxo ba mu ñëw mu téye ko jox ko loxo ba téye ca loxo ba ne ko xanaa xamoo ne loxo bii nga ma jox moom la yàlla ak ab yonentam bëgg mooy loxo buy liggéey bu ñaareel ba am na ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa koo xam ne daf daan ñëw ca jàkka ja rek jaar ca jàkka ja rek di jaamu yàlla di naafi la rek di woor naa fi la rek di woor bu ngoon jotee xarkati matt bi ci buntu jàkka ji mooy jël ci ndesiti añam bi may ko ko mu dogee ko yonent bi joxe misaal ci ñoom ñaar ne xarkati matt bi moo gën ca yàlla ci ki nga xam ne day fanaan ci jàkka ji ko yendu ngir lan ngir kii ñaxam lay dundee ba pare di ko ci dundal kon kat nag bu fekkee ci wàllu yàlla la ak diine amul lu gën a ñor diine liggéey Seydina Omar ibnul Xattaab Seydina Abubakarin Siddiq bi mu faloo xilaafatu rasul dafa xëy dem marché mm-hmm. ne day jaay saaba yëpp dab ko nag ne ko ah, ëpp na nag ku yem ni xalifatul amirul muminin ñu di la bàyyi ngay dem di jaay ca marché ba mu ne leen ah bu ma ko def yow tamit du ma dundee sama ñaq de ñaqu jàmbur lay dundee waaw ah, waaw te liggéey kese lañuy fi yàlla sant ak jaamu ko ci lu wér saaba yi toog waxtaan ñu yëkkati kenn ku ci ne ci li nga am di ko jox amir bi di ko dundal foofu la lempo yi jógee kon nag ñun jullit lañu su dee ci diine la yàlla li ko gënal ci ab jullit mooy ñu jaamu ko kon nag sëriñ li des ci waxtu bi bareetul waaye yàlla dafa wax ci alxuraan ne yéen ay bay wala man maay bay kon sëriñ li ngay delloo ci kàddu gi rek benn minute ñu dese ñu doog a delloo kàddu gi tàggu mbokk yi ba beneen programme. jërëjëf Seydina Ousmane. li ma waxoon rek laa dellu siwaat ku bañ mbay mbay rek ngay bañ ndaw lu nangu te liggéey lu yàqu ci àddina moo ko yàq te fi ñu toll nii tey su taw na boo demoon bay ñàmbi mu baax boo bayee maalo mu baax boo bayee dugub am ko soo amul jiwu gerte am nga jiwu naaje am leneen kenn du ko lay te suufas gàmbee loo fi bay mu baax nga ñëw nag taxaw fii yaa ngi xatal teeru bi teeru bi ci boppam yaa ngi koy xatal te bari nañ xale bu fi teg ba mu yàgg ngay dem di tuxtaay di taxawaalu mhm. ne la wóor ne dara tegut la ko lu may bañ a di génn liggéey nañ dem liggéey nañ dem ci tool yi bay mhm. nañ dem ci tool yi bay ku bañ mbay mbay rekk ngay bañ te wutam xaalalkat mbayee ca gën a sedd sëriñ jërëjëf nee na wutam alal mbayee ca gën a sedd foog naa loolu woykat ba waxoon na ko mhm. euh, li leen di tàggoo rek mooy euh, li woykat bi da wax ne am sa soxla yor sa loxo ci sa poos daj ko jar na liggéey ba dee waaw jar na ko de kon loolu wax ju wér la xikma la kon ndaw day liggéey nee naa la société buy dellu gannaaw ñu ngi koy xàmmee ca ndaw ña société bu mu nar a jëm kanam it ñu ngi koy xàmmee ca ndaw ña ndax ndaw mooy fiicoo bi nga xam ne moom la yàlla teg ci kanam àdduna kon li ñu leen di tàggoo mbokk yi doon seetaan programme xam-xam le di leen wax ne li ñu jo li ñu cëralee woon ci waxtu jeex na bareetul Euh, ñi ñu nekkaloon ci wàllu technique bi di Alaaji Ousmane ak ñi mu àndaloon ci caméra yi gërëm nañ leen nuyu nañ leen i tamit di leen ziar di leen ndokkeel di nuyu soppee programme mu xam-xam la yi tamit seen mbokk la woon a Ousmane Mouhamad Lamine Ba ak seen mbokk al imam Haaji Mouhamad Lamine Ba toogaloon leen fii jàkkaarloo ak yéen di sottante ak xel di leen jox dox daje ci beneen yoon di leen wax ne nag yéenay suul seen jiwu waaye yàlla mooy kiy meññal nañ suul te jébbal ko yàlla di leen wax ba aqiru daawaana an alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala rahmani rahim alif lam ra tilka ayatu alkitabi wa qur'anin mubin ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمْ